bay te mu am engrais de fond ci diiru ñaar ba ñetti fan laataa ma ji ma pulvériser benn quantité bu 7 ba 8 pulvérisateur wala siwa ndox yu 15 ba 18 litres hectare bu nekk. bu dee toolu ceeb mbokk dugub gerte boo xamante ne mos nañ cee bay damay natt ñaari bouchon green ok ci 15 ba 18 litres ndox ma pulvériser ci kaw NPK yi ci suuf si bu dee appliqué nañ ko ak itam ci kaw urée bi bu dee appliqué nañ ko jàppale ne NPK mooy azote phosphore potassium damay pulvériser quantité wu 7 ba 8 pulvérisateur wala siwo ndox ci 15 ba 18 litres hectare bu nekk jàppaleen ne boo leen di pulvériser Green OK ci suuf si da nga bokkul ak kenn ci téléphone téléphone rek bàyyi ko ci loxoom Touba Kër Niang communication chez Mamor vente en gros ak demi gros lépp loo xam ne dafa jëm ci téléphone wala batterie wala flashka écran connecteur chargeur back cover habillage accessoire pour bépp réparation wu téléphone loo soxla ñu réparer la sa téléphone matériel ba moom am na ko maam dafay dem ba Chine dem Dubaï indi leen di nuyu di leen ñaanal bu baax a baax jàmm ak salaam di kontaan ci ànd bi nga xamante ne bii yéen koy ànd ak ñun ñi ngi fi nga xamante ne bii mooy école de lit Balla Gaye seet si Gàkku mu war a def face à la presse ñu gis ki nga xamante ne bii mooy Pokola moom tamit ci suba mu jàkkaarloog presse bi yëkkati kàddoom wax jox ki nga xamante ne bii mooy Gàkku 2 Gàkku 2 war a wax delloo ko champion duñ def rek lu dul bàyyi la nga nuyoo bala ñoo xuus ci biir waxtaan. waaw salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum Sénégal. maa ngi nuyu mbokk internet yëpp maa nuyu képp ku ñu seetaan di nuyu géejuwaay gi ñu gi ñu dëkk di nuyu waa géejuwaay gi yëpp yëpp yëpp yëpp di nuyu képp koo xam ne deret géejuwaay may daw sa yaram ñoo ngi lay nuyu di la woo si combat bi di woo waa Pikine xam nga Pikine moom falaa dëkk di woo senegal Sénégal gi yëpp waa Kébémer sama dëkk waa canawa waa Thiès waa Fouta xam nga. waa daaru xale bi du nuyu waa waa waa kër Thierno Madani du nuyu waa kër waa kër eh, maam Amary Ndak du nuyu waa kër Serigne Touba du nuyu waa Tivaouane du nuyu waa Kaolack du nuyu waa Sénégal bi yëpp yëpp yëpp yëpp fépp ku kilifa diine nekk ñoo ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di nuyu waa Cité Barak yi nga xam ne foofu laa dëkk di nuyu waa Guédiawaye gi yëpp yëpp yëpp yëpp di leen nuyu yéen journalistes yi di nuyu promoteur bi ñu ko ñaanal jàmm di ko ñaanal réussite di nuyu sama adversaire di ko ñaanal jàmm ba jour ba mu ñëw dara bañ koo dal incha allah. ayca gàkku mi ngi noonu euh, euh, Pokola euh, tey mu jàkkaarloog presse bi wax li nga xamante ne bii moom noonu lay waajee yow tamit yaakaar naa yaa ngi ci waajtaay bi fan nga ci tollu non pare nañ. pare nañ bu doon dimanche sax pare nañ bu doon suba sax pare nañ waaw. nga ci côté yëpp. pare nañ ci côté yëpp moo moo tax bu doon suba sax pare nañ pour bëre nga jël xale ba nga xamante ne bii làmb def ko bàyyi xel xale bu am coow xale bu mën a bëre xale bu am gannaaw pour pourquoi choix bi ci poko la non du choix de. du choix. moom moo choisir Gakou moo ko laaj moom moo taq rajo yi di wax ba combat taxaw mais man choisir moo ñu jël ko ITV mu ne bëgg na jàkkaarlook yow quinze minutes yéen ñaar ngeen cons wala ngeen a bëre xeex. <laughs> waaw loolu am problème loolu mooy wóor naar si groupe soo rek amu problème man moom ragalu ma xeex. te moom xam naa ne jàmbaar la ragalul xeex kon dinañ xeex loolu jarul wax. kon mën nanoo xaar yéen ñaar ku ci nekk suul say tànk. loolu jarul jarul laaj. force la force la. Marapola jarul laaj dañuy xeex. waaw loolu moom xam nga dafa am combat yoo xam ne amul ay naxanteeg ay li di draayanteeg ay def nii amul. moom jàmbaar la man jàmbaar la am ñëpp xam nañ ne bu combat bu arbitre sifflé dañuy xeex dañuy bëre loolu jarul sax laaj. combat bi li tax ñëpp bëgg ko ay dañ ko xëccoo ñëpp bëgg ko xam nañ loolu moo tax waaw xam nañ ne du combat bu kii quoi du combat buy seet du combat bu ñu négocier du combat négocier waaw. du combat négocier daal non non du combat ban façon combat lañ mën a xaar entre Gackou ak ki nga xam ne mooy Pokola. combat bu saf sàpp combat bu tàng jër. dañuy xeex dañ xeex bu baax a baax a baax dinañ bëre. incha allah. di ngeen xeex di ngeen bëri waaw. est-ce que xeex ak Pokola wóor na. waaw. Gakou. <laughs> ay réew mi def sax xaw ma si xeex ak moom bu wóorul léegi xeex kat mooy wóor kon. Hmm? Pokola boo xeex ak moom xeex moom ku mu kat mooy wóor. Pokola. non damay laaj nda xeex kat mooy wóor kon. non man kay question bi yow laa ko laaj. ah damaa ne dama xam ne damaa xam ne Pokola kat moom mos amul leneen lu ñuy sóoraale si moom wax dëgg yàlla. Hmm. non non man amul dara dara dara lu may sóoraale si Pokola. mooy tëdd di xalaat wala mooy ci damay nelaw damay nelaw bëccëg damay nelaw guddi su ma jógee entraînement damay nelaw bu 5 heures. Ah? wallaahi. amul lenn looy sóor ci Pokola. non non amul dara lu may sóor ci moom. est-ce que loolu du naagu. du question naagu mais damaa ah. bëri ñu ko gën a dangereux. man bëri naa naa 16 combat bi may 16e xaw ma 16e man bëri naa ñu ko gën a dangereux foofu ñu ko dàq bëri ëpp ko. mais da ngay bëri xale bu nekk ci yoon waaye ñun ñun xam naa ñun duñu ay xale te nekk ñu ci yoon combat bi bu arbitre sifflé laa Pokola arbitre bi moo ko fi bàyyi. bu arbitre sifflé ma dama koy fete. arbitre bi moo ko fi bàyyi yow Pokola da nga rëy di wax Pokola arbitre bi moo la fi baax. arbitre bi moo la fi baax waaw. ok euh, euh, tey ñu dalal ko. waaw balaa am lu ko gën a neex. Balla Gaye andi la Sa Thiès andi la ñoom ñëpp nee na bul la seetaan nan la andi ci la gën a mën a jàkkaarloo yow wane pour. wane non non moom na bàyyi yooyu ay kii na la ñee indi na la ñëpp indi booba léegi mi ngi koy wax. bala Gaye ak Sa Thiès yëpp dinañ ñëw bu ñëwul dama koy daan bu ñëwee dama koy daan incha allah bala Gaye ak Sa hmm. bu ñëwee damay daan Pokola bu ñëwul dama koy daan incha allah bu neexee yàlla. est-ce que umpule woo adversaire bi nga am parce que dama dégg nga ne bëri ngaa ñu ko gën a. oo bëri ko dàq bëre te moom ci bu dee ci kaw mi ngi ci 3 kaw wala 4. waaw xam nga tey kaw kaw sens la rek tey jii nii mën nga bëre koo xam ne ŋaam yi baaxul wala wala siri dafa kii wala yooyu noonu xam nga. nga dóor ko rek mu kii xam nga ñaareeluñ ko kenn. tamit jombul kenn tamit. mën naa ko dóor mu daanu mën na mu dóor ma daan jombul kenn. mais tey kaaw chance la. ak am na ñoo xam ne tey jii nii xam nga am na foo xam ne sax du ma fa egg mais. point la rek point la quoi xam nga waaw mm. mais bi. nekkul combat yi mu daan bëre moom xam na loolu sax. moom kay nee na bëgg bëre bañ bëre bëgg xeex bañ xeex. waaw moom laa wax naa dara sarax Ndonga Njaay baa mu ti bëgg. waaw wax naa la ko léegi wax naa la ko léegi combat bi du combat négocié man bu ma ko bëggee négocié mënul nekk moom su ko bëggee négocié mënul nekk am na yoo xam ne jëru soo wax moom xam na ne du ma ko négocié moom man xam naa ne du ma négocié mhm. bu arbitre bi sifflé bu dawul dañuy daje mhm. incha allah. naar te xam naa ne te moom xam naa ne du daw. Mhm. na yéen ñaar ñu ne ko ci naka mu ne kuy bëree duma daanu ak kuy bëree damay daan oh. duñ benn ñu ne ko kuy bëree duma daanu mun a xam ngeen léegi man ñaari victoire la am oh. moom la wax de 15 combats ñaari victoire la am deux défaites ou pas trois 13 victoire la am moom ñaari victoire la am nee na duma daanu ngay non man moom ñaari victoire la am 9 combats ñaari victoire ka mun 4 défaites yooyu waaw léegi man ak moom kan moo ëpp ay victoire sama samay victoire samay victoire moo ëpp ay combat am ñi ma daan ñoo ko mën. ay tonnerre dégg nga ñi ma daan ñoo ko mën. ñi ma daan ñoo mën Pokola. du ma leen lim sax yéen xam ngeen xam ngeen ñi ma bëreel dégg nga ma yéen xam ngeen ñi ma bëreel xam nga li ma la wax ñi may bëreel deewuñu ñu ngi fii di dund ñu fii di.